Euh, muy dëkk bo xamni ni euh maam Cheikh isa Diène mo fi daan taxawal gam ci ndigal Serigne Touba bi mu fi ko ko njabotam euh Cheikh Mahamadou Lamine Diène sëñ Baara di ko taxawal bàyyeekoo fi. ko njabotam euh serigne Abdou Latif Diène mi nga xamni tay mo fi nekkal maam Cheikh isa diko ñaanal mu yagg fi ta and ko serigne Halim ak serigne Abdou euh dëkk bi nak di ndand day dëkk bu am ciosan ndax dëkk la won bo xamni naam euh, bu dekk bour la dekk ci addu la won waye Serigne Touba fay yebal ñaari jambar ba tax tay ji ndand nek pey bo xamne ni pey pays diine la fo tudd lislaam sa xel dem ci. ndax euh, mam Cheikh Ibrahima Fall xam ngeen ne avant Serigne bi dem ci geej gi euh, amon na fi titre français bu yaatoo yaatu titre français boobu mo tuddu daru Fall bo de dugg ndand bu fekke yaangi joge ko tay ngaay moom ngay njëkk jot monument bi mi ngi fi. mam Cheikh mam Cheikh Ibrahima Fall Babil Mouridina gasone na fi ab teen wax nañ ne sax teen booba ceddo yi ñoo ko sakkoon waaye jamono dox na ba ab sëtam sëñ Cheikh Ndigal Fall sikkartiwaat teen ba penc maa nga fa kàdd gam daan wéeru ma nga fa sëñ Ahma Fall moo fi nekk doomam boo doxee tuuti ay mètre yu bëriwut da nga egsi fu ñuy wax daaru jenn daaru jenn nag foofu mooy euh, quartier bi maam Cheikh isa jenn kon dëkk bi ñaari quartier ku seq muy daaru Fall ak daaru jenn am na fu ñuy wax Iskal ak jamono waaye yooyu pays tubaab yi la woon ay jamono ak pays buur yi fii la kolom kolom faal tamit teen bu yàgg boobu nga xam ne mat na cent ans euh, buur yi daa fi xare ay cosaan ay ay affaire tuur ak ay affaire cosaan nekk ci moom mi ngi ci dëkk bii euh, euh, daaru jenn nag maam Cheikh Issa mi ngi ko sos 1926 1926 la ko sos li sabab mu sos ko it mooy xam ngeen ne maam Cheikh Issa moo tabax jumaay njaareem bi mu tabaxee jumaay njaareem ba nopp ci ndigal la Serigne Touba ak mboolem ànd koog mboolem seex si ba mu sotti Euh, desiti ciment ya ak fer ba ak ak tuile ya euh, la la maam Cheikh Issa laaj Serigne Touba ndigal ne ko dama la ci bëgg tabaxal ab tonel boo xam ne nii da day bàyyeekoo ci biir kër gu mag gi jaar doon yoonu suuf boo xam ne nii day jaar ci biir day jaar day jaar day day jóge kër gu mag rek pële ci jumaa ji ndax boobu sëriñ bi nit ñi xir nañ ci moom euh, ak taalibe yi ba nga xam ne bu génnee di julli ji jumaa ñu ñu xir ba bay bay bay bay ba di ko topp ak di ko ak di dal ci kawam boo demee ci irwaa nadim sax da nga dégg sëñ Mat Lamin naan nit ñi dañoo xër ci sëñ bi ba amuñu sago ci moom ba nga xam ne mas nañoo sax dal ci kawam ba joggi ci waroo dàllam ba ba tànkam naaj ci mu ne loolu nag moo waraloon ñu defaloon ko barrière boo xam ne nii barrière bi ci la daan dox bu doxee nit ñi dox ànd ak moom bu taxee nit ñi taxaw tonel boobu nga xam ne maam Cheikh Issa nag moom la moom la amoon yéene tabaxal ko Serigne Touba moom la ko indil fi ndànd Serigne Touba ne ko tabax xaju fi li des sama dund ndax xam ngeen loolu wenn siis la euh, mu jox ko ndigalal mu ñëw fii fi ndànd tabax ko fi daf wax nañu sax daf ko ne Eh, demal ba fu la soob nga tabaxal ma ko fa kër eh, bu àggee dinaa la fa fekk si bi ci maam Cheikh Issa diisoo ak ay waxtaane ak ay ay jàmbaaram ay seexam ku mel ne sëñ Daaru Ngañ Tànni ñoo ko ñoo ko wax ne ko indi ko indi indi ko sa sa sa cosaan xam ngeen maam Cheikh Issa fii la cosaanoo dëkk bi mu cosaanoo mi ngi fii ci suñu wet 9 kilomètres à ah, 7 kilomètres 8 9 diggante boobu ci lay toll ñu di ko wax cëli jenn tàggaar ah, ak diggante ma ngi daan noonu lay toll foofu la foofu la cosaanoo maam Cheikh Issa daal di indi tabax boobu nag fii ci fii ci daaru jenn boo fa demee fa la sëñ Baye Jagal mi jógee fa la fa la fekk xalifa bi ah, tabax boobu nag maam Cheikh Issa moom la njëkk tabax ci tund wi muy tabax bu yàgg boo xam ne kër Serigne tubaa la fi mu ne nii def nañ fa jumaa ci wet gi ci penc mi muy penc mu yéeme moo xam ne Serigne Touba moo ko joxoon ndigal mu tabax ko mu noppi 1927 ca ca mujj ga bi muy noppi nag fekk na Serigne bi ah, ah, ñibbi na Touba te waxoon na maam Cheikh Issa ko Euh, tabax bi su noppee dinaa la fi fekk si nee nañ wax nañ ne keroog guddi gi nga xam ne euh, maam Cheikh Issa tabax bi noppi na ba mu war ko jébbal caabi yi nga xam ne bu fekkoon sëriñ baa ngi ci kaw suuf day dem ne ko caabi yaa ngi nii wax nañ ne guddi googa moom maam Cheikh Issa ñoo fi bokk fanaan ba bët seet wecc ay xar baax yu bare bare am na fa barab ba ñi fiy ñëw xam nañ ko ay jeexiti sëñ bi ma fa wax nañ ne sëriñ bi joxoon na ko ay gaal sax yoo xam ne nii gaali barkeel la ci biir tabax ba la ko suul wax nañ ne it euh, jamono joo fa day sedd amul amul waxtu tàngoor amul waxtu sedd loolu moom ku fi dikk boo fa gis ko ba penc mi ci ba jëmi boppam it penc la mo xamni penc mu sel la ma serigne Baara Jenn jamono yi mu da nekk dafay daggaloon rakkam yep ñu nek ci biir ñu nek ci penc mi nga xamni da daanaka penc mi ay neeg ko woron yo xamni njabot sa ginnaw bi lañu yaatal ah, dagal leen ay kër ci biir dekk bi ba yaatu ñu bàyyi penc ma gamo gàmmoo ah, lolu moy moy sababu sababu da da daru jenn muy pak bu sel bu lab bo xamni waa dëkk bi sax wax nañ Cheikh nangoo naa ci Cheikh Abdou Salaam Diène mu wax ne am nay jamono dañoo dajaloo woon bëgg kër sëñ Touba dal di ñëw ci moom mii ndax moom moo fi moo moo moo moo fi nekk euh, euh, di fi taxawal lislaam di fi tabax ay ay ay daara di fi jàngale di fi yare euh, bi nga xamee ne dikk nañ ci moom ne ko dañoo bëgg kër sëñ Touba dañoo bëgg a àndandoo dem ci sëñ Saliou comme yaa fi suñu kilifa mu jox ñu ndigal ci ñu tabax kër sëñ Touba ci dëkk bi ndax dëkk bi yelloo na ko dëkk maam Cheikh Issa ak dëkk maam Cheikh Ibrahima biñ ci seigne Saliou biñ ko waxé né ko dañu bëgg kër seigne Touba dañu leen ana ana kër ana ana kër Baye Issa ga ñu né ko ma nga fa mu ne leen kër goga kër seigne Touba la ndax Cheikh Issa mi ngi ko tabaxoon ci ndigalal seigne Touba kon kër seigne Touba gi jëk am ci ci kaw kaw suuf ginaaw seigne bi moy moy moy moy moy kër gi ci ndand loolu la leen wax biñ dikkee nak ñu gëna a fonkaat eh, penc mi gëna a fonkaat kër gi ba seigne Abdou Latif diane mi fi nekkal Cheikh Issa tay tabaxaat na ko yeesalaat na tax bi ndax jamono yi mam Cheikh Issa yi ko mam Cheikh Issa tabax loolu yag na ay 1927 booba tiwil la won ay barke lañ fi woon waaye sëñ Abdou defaraat na ko soppiwut dara nag ci plan bi waaye tabaxaat na ko dalewaat ko defar ko bam ba bam kii ñu def fi ñu def fi jàkk ci ci penc mi fi la ñuy gàmmoo njabootu si Isaa yëpp fi la ñuy gàmmoo ah kon sëñ Ahmadou Diong ba Diaga loolu laa la mën a xamalagoon ci waaw nga ne guddi gàmm gi nag gàmm moom ah, ni ko sëriñ Tuubaa waxee rek amuñu lenn lu dul sëriñ bi ah, laylatu mawlidin nabi laylatu mahwi réebi laylatu mahwi tawi tursi taasmi guddi la goo xam ne nii day far ay bàkkaar guddi la goo xam ni képp ku koy màggal ah, màggal gi ñu koy màggal dañuy wamat jëme ñu àjjana te nun suñu yoon nekkul ci ndax gàmmo bi daal la wala sunna la nun nun murit moom lépp lu sëriñ Tuubaa def rek loolu te luñ say seet te sëriñ bi gàmmo ak màggal la gënoon a fonk ñaari bis yooyu la sëriñ Tuubaa amoon damay faral di wax ne sax màggal moom bisub sëriñ Tuubaa la boo xam ne ni moo ko wooteel yi sunu borom ndax dafa wax ne kaay sant li yàlla gàmmu nag mooy bis bi nga xam ne moom la moom moom moom lay màggal guddi yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon nag képp koo xam ne ab taalibe nga di di di di bëgg a bëgg a bëgg a gàmmu dellul ci ci ci ci ci mbindum Serigne Touba ci ci ci ci ci ci jës bu ni ko waxee rek màggal guddi gàmmu weesuwut ni ko Serigne jàngalee muy ah, màggal ko ci sunna te màggal ci sunna ne weesuwut salaatu ala nabi ak jàng alxuraan ak bernde ndax bisu korin aw yi la wax ah, Serigne Touba ñaari bis yi mu am. Ah, dara ëpp ci doole bernde muy magal ak gàmmu ah, ñaari bis la yoo xam ne yëpp boo ko xoolee bernde mooy cosaan li kon gàmmu dëgg dëgg gàmmu mooy mooy bernde bernde ci lu saf sugar wala bernde ci ay berndeel ay xeeti ñam li ko dara ci gilem gilem ba ci ginaar ak salatu ala nabi ak ak ak ak jàng alxuraan ak sikrullaay ak ah, fanaane ko ba guddi sëñ Saliou sax daana wax ne guddi gàmmu day guddi gi ko jëkk ak gudi gi ko mujj yemale yemale ko guddi gàmmu gi dara ci àdduna jëru ko bañ na ko ba képp ku ko masa laaj ndigal sax ci ab bis daf naa la man de amoon amoon ndigal ci joxe joxe ndigal beneen bis bu dul bisub gàmmoo ak bisub màggal ndax ñaari bis yooyu la fi sëñ Tuubaa bàyyi waaye nag ku ku taxawal sa bis boo egsee mën naa laa ñaanal ah, jàppale la ci waaye nag du ma du ma ci jox kenn ndigal ñaari bis yooyu daal la am tax moo tax moo tax boo ko seetloo diirub li nekk muy màggal ak gàmmu la gënoon fonk moom la daan santaane moom la daan fàttale daan ko soññee yeneen bi si ci des yëpp moom da ci daan def alalam di di di di di di di di di ko di fedd leen ndigal li waaye moom bisub gàmmu ak bisub màggal daal mooy la am kon képp ku taalibe bi te yaakaar Serigne Touba noo fonki màggal rek war nga ko fonki gàmm ndax gàmm moom Serigne Touba moo doonoon bisam bi gën a rëy wañ na ko wax nañu weeru gàmm daw ci fatu weeru gàmm lu mu mas a am da koy joxe daana joxe ci jamono yëpp waaye weeru gàmm moom moo ci rawati kon nag nañ ko fonk bu baax ni mu ko waxee rek ah tasimu bi sunnati yaqudna al jannati bi isdiadi binati li muxlisin muasimi ay magal gën koy magal dal ci ci ci anam yu googu wax ah dañuy womat jëme ñu àjjana waaye nag li muxlisin muasimi gi jarna ci baye xel moy selal gi ak magal gi wax nañ sax kep ko xamni ne nga fini ñuy fini fi guddig la mo mooy na bi kep yow mel nga ne ku badar ak ak ak ak ak hunayni teewee gi ko teewee rek ñu dara waye ñi fa teew di jang rek di jang xasayit ak di sikkar ak di tuddu yalla ak di jang alquran yow nga teew maanaam ndox man fa teg ca biir ca biir ca biir euh, baas ba ñu fa ñu ñuy jàng rek ndox moom rek sëñ bi wax ne wa inna la ma en xuri mooy du xeer basari fa tur bil mu taxari yëkko fu kenn mu xamee day saafara jàngono di fekk di fekk seytaane kon loolu rek mooy li ñuy soññee ci gàmm gi gàmm gi mooy bisub Sëriñ tubaa ak màggal gi kon nag képp ku dib murit nag ko fonkle ci jaamu yàlla ak sikar ak salaatu annabi ak jàng alquran ak selal lo man rek ak berne ak eh, sant jere jere jef bay Jagal ñi ngi ñaan sa sit bi sun borom yob ko fu kawe sa njort def ko ci sit yi gëna kawé kawe yi gëna barkel sit yi nga xamné liggéey bi eh, bay Jagal TV liggéey bi señ tuba bi ñu gën nangu barke borom jef jere jef Cheikh Mouhamadou Lamine ñu ngi lay sant yow itam eh, di la gërëm di la yobante ay nuyo ci sëriñ bi ak mboolem talibé yi ak kilifa yi ñu ngi am mbégte lool di la jéggalu ci xat-xat yi waaye sa yu ñëwé rek nga dalal ñu yaatal ñu ba pare Euh, daal di ñuy jox say kàddu yoo xam ne yi euh, lamboo lay euh, njàngaleem sëriñ bi fees dell ak xam-xam yoo xam ne képp ku ko jëf da nga jëriñu yàlla nu yàlla defal dégg ak topp yàlla na yàlla sàmm te aar la te àggale say mébét yàlla na fi yàgg ñëw te yàgg la fee fekk. mbokk yi lii lu tuuti la ci leen jële leen fii ci Touba ci daaru jenn Dienne Darou daan kër maam Cheikh Issa jenn ñu ngi leen di sant baax di leen gërëm salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu.